muy wéy di jur ay loraange ci askan wi lii di garab yi ni jaay ci mbedd yi le askan wi gis ni loolee nekkul lu baax ci seen wér-gi-yaram wala sax sunu wér-gi-yaram ku ci nekk rek di ci joxe ci xalaat ci mbir moomu li ñu defee garab yooyu de moom ku jënd garab ku ne yow sa jëmba war ngaa xool garab ga lay jariñ nga di ko jënd nga di ko jël di ko jëriñoo te bañ a jox nag dox daje ci mbedd mi rek nga gis garab rek nga daal di jël daal di jël kooku moom boo ko defee gaañ lay doon ñi nga xam tamit ñoo ubbi pharmacie ñoom seen jëmbopp di jaay garab tëb-tëb rek ubbi pharmacien commencé jaay garab te yow doo ko xam nga dem jël garab ga nga war cee faje faj tànk bi metti nga faj ci bopp nga dem ba ci biir mu indi lay jafe-jafe loolu ba tey day nekk te comprimé ne ki daanaa dégg ñu ne ci mbedd da ko ba dajee euh, comprimé ko jaay comprimé ci mbedd nga di ko jënd kooku moom erreur la moom bon nit ñi aussi neexuñu sensibiliser parce que dañ leen di wax mais ñoom duñ dégg et dañ ciy xool xam li ma la xam affaire bi gën a yomb bon li yomb la seet quoi xam nga duñ dem ci pharmacie yi ñu defal leen garab bindal leen ne leen lii ngeen koy defee affaire yooyu noonu. garab yi ñuy jënd ci mbedd mi du seen sagoo tax ñu koy jënd li tax ñu koy jënd hôpital yi ci boppam ñoom ñoo seeral seen garab comme seeral nañ seen garab nag fu ñu mën a am bu ñu leen bindalee ordonnance fu ñu mën a amee garab dañ ko fay jënd. yi jàpp ni seerteg ordonnance yi le tax na ba askan wi di wàcc ci mbedd yi ngir jër garab yooyu le te loolee baaxut si ñoom ndax sax mën na leen indi indil loraange. facilité moom baaxul quoi bon lu yomb loolu nga koy jëndee nga foog ne alal ko moom mooy loolu mais da lay indil ay problème quoi après ay problème yoo xamante ne après yow après doo ci mun a faju mais après tu vas mourir da ngay dee moo ciy tegoo rek waaw parce que médicament de la rue baaxul quoi baaxul c'est interdit. ñoo xamante ni dañ koy jaay mais duñ xam sax date bi quoi date date bi date bi nga day am date boo xamante ni après day day kii quoi. après bon façon d'utilisation bi aussi duñ ko xam quoi dañ koy jënd mais après dañuy naan rek naan rek naan rek. bon affaire boobu nag mun na mun na indi ay problème quoi yoo xamante ni bon après yow daa yow doo ko xam. jaaxal la ndax man mii wax ak yow am naa saa benn maam boo xam ne dafa feebar ñu yóbbu ko hôpital léegi bi ñu ko yóbbu hôpital bindal leen ñu bindal koy siro ay ay sese yi léegi biñ ko biñ ko bindalee sese yi ba muy dem moo demal boppam waaye sese yi ni ñu ko waxee ni pour mu jëlee ko ni du noonu léegi bi ko wanaatee beneen beneen docteur bi mu ko seetee dana bii bii par simil la ko war di naan. te lool da ko da daan bis bis mu naan mu naan paquet moo amee ko jafe-jafe yu soo metti lool. ñi ñoom di sàkku si nguur gi lee ngir mu yombalal askan wi garabi pharmacie yooyu lee ndax ñu mën di si jënd ngir moytu garabi mbedd yi lee. pharmacie yi daal mooy li nga xam ne mooy li état bi nag moo mën a jël responsabilité moom mooy xam lu baax ak lu loolu moom état moom wàllum état la. police it ñoo ci jël seen responsabilité ndax nit ki nit ki li muy jaay toujours daf ko war di xam ndax mooy li avantage réew mi. waaw waaye fab garab boo xam ne si amul lu la njariñ nga utiliser ko mu rey la ci erreur te Touba nag li ci ëpp dañoo bëgg lu yomb moo tax donc da ngay jëndal da ngay dem ci hôpital ñu jël pharmacien bi bindal la garab nga wëlbati dem ba ci garage bi nga jënd ko ci au lieu que nga dem ci pharmacien yi am garab yi baax nga jënd ko ci mais duñ ko ci def Touba baa dool la nag sa waayel fa mu mën a amee rek lay am bu yóbboo na ci dee waaye foofa la jëm jëm yéen ñii li ngeen war a def yéen ko defut da ngeen a war a wàññi ordonnance yi wàññi nit ñi sa waay faj leen ak lu mënti xew rek day garab yooyu lee ñuy jaay si mbedd mi mi ngi wër di indi ay loraange si sunu wér gi yaram